Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne gannaaw rasulullahi moo gën ci mbindeef yi xam ngeen ne bi mu daataan gane adduna fekk na baba buur ba nga xam ne moom la ñuy wax Namruud moo géntoon gént gu doy waar ne ki nga xam ne moo koy folli jële ko ci nguuram gi dana juddu ci jamono yooyu ñuy rey xam ngeen ne nuroo na foofu yonent yàlla Muusa ñuy rey bépp liir boo xam ne juddu na Ibrahima nag bi ko yaayam juree dafa dem ba ca àll ba mu nëbb ko ca xunt ma bàyyi ko fa di ñëw di ko seet si di ko nàmpal bàyyi ma tam di ko seet si azara bi nga xamee ne Ibrahima mu ngi xàmmee tuuti mu nekkoon xale bu rafet bu am bët mën a xalaat lool nag lu nekk xelam di ca dem mu di ko jéem a lijjanti benn bis yaayam ak si bi mu ko naam bi ma ko joxee lu mu lekk ba noppi toog mu daal di xalaat xelam ne ko waaw yaay yow ku la ku man ku ma moom mu ne ko man maa la moom mu ne ko ah waaw waaw yow ku la moom yaayam ne ko xanaa sa baay mu ne ko waaw moom sama baay moom ku ko moom mu ne ko xanaa namrus buur bi mu ne ko namrus moom ku ko moom mu ne ko eh noppi mu noppi bi nga xamee ne yaayam dem na ca kër ga waxtu bi bàyyam war a ñëw di ko seet si mu ne ko xale bu doy waar nag boo demee dana la laaj du la jaaxal mu ne ah lu ma jaaxal man mi mu ne ko waaw mu ne ko demal rek bi mu demee Ibrahima ne ko waaw bàyyi yow man ku ma moom mu ne ko xanaa man ah sa yaay mu ne ko waaw ku moom sama yaay mu ne ko man ah yow ku la moom mu ne ko Namrud mu ne ko waaw ku moom Namrud mu dóor ko daal ko ci lex bi ne ko noppi Ibrahima noppi waaye ba tey sikki yi ak xalaat yi mu ngi daw ci xelam rek déggagul lu ko doy lu mu mën a jàpp mu ngi xalaat rek ba mu guddi ba mu njëkkee génn muy guddi ba tey wóoloogul ne buur bi dana ko jàpp rendi ko ndeyam ak baayam wóolooguñu loolu Ibrahima génn gis biddéew yi bi mu gisee biddéew bi xalaat ne xanaa ci bopp moo ko war a moom ndax ñi ñu ko wax ne ñoo ko moom daal doyuñu ko mënuñu koo moom biddéew bi sox mu ne ah kii de du sama borom gis weer wi weer wi feq mu ne kii na nga ëpp xanaa mooy sama borom weer wi suux mu ne déedéet man daal kuy suux neexuma jant bi fenk mu daal ne kii nag xanaa mooy sama borom jant bi sox mu ne ah sama borom day gisaguma ko waaye maa ngi koy ñaan yàlla na ma gindi ndax bu ma bàyyee ma danaa bokk ci way réer ñi du ma xam ki ma moom du ma xam ki ma bind te kon du ma texe Ibrahima daal di def noonu bi mu toogee ba nga xam ne mag na tuuti ba ñu delloosi ko nekkatul liir bàyyi menuisier la woon boo xam daf daan yett ay xërëm ay poupée di ko jaay ñi koy jaamu di ko jënd ñi jaamu xërëm. benn bis mu ne bàyyam waaw li nga xam ne yaa koy liggéey ci sa loxo. nga xam ne boo ko wàccee mu wadd ci suuf du jóg lu dul nga yëkkati ko mënul la yëngu du dégg du gis nga di ngeen di ko jaamu man de loolu jaaxal na ma ubbi na sama bopp mu ne ko téyeel sa làmmiñ Ibrahima mënul a téye làmmiñam ndax nit ku yàlla yónni la mu wër dëkk bi di leen wax loolu rek baayam nag xam ne léegi kon métier dana yàqu ndax léegi buñ dégloo Ibrahima kenn dootu jënd xërëm yooyu muy yett bu ko bàyyam joxee xërëm yi rek di ko ko jaayloo fekk xërëm yi rek la bañ ci àdduna bu génnee sànni ko di dajeeg nit ñi di leen wax naan réew mi dañoo réer lii ñuy defar ci seen loxo ba noppi di ko jaamu ak ndox la ndax lii mënul a jëriñ kenn dara ñoom ñi ko sàkk ñoo ko war a moom waaye mu mënu leen a moom moo leen waroon a jaamu waaye ñoom waruñu ko woon a jaamu ndax ñoo ko liggéey ci seen loxo ah gannaaw bàyyam nag day liggéey di jaay mu ngi yàq mbiram ngi tax nit ñi dootuñu jënd kon li muy liggéey te kon dana ñàkk loolu metti ko mu dañ koy génne ko yow dootuma dëkk ak yow ndax sama noon nga sa nga maa añaane li nga xam ne ci laa jëlee sama wërsëg dina ci dimbali nga fas ko yéenee yàq Ibrahima dem waaye fu mu toll rek mu ngi xalaat boromam di xalaat réer gi nga xam ne nit ñi réer nañ ko di jaamu leneen lu seen borom benn bis ñu am feet ni ngeen koy faral a dégg rek gaa ñu dem ca àll ba def seeni cérémonie Ibrahima wuutu leen dem fekk béréb ba nga xam ne ca la ñu taxawal xëram yu mag yeeg yu ndaw yeeg yépp mu daal di fab sémiñam ñëw gor yépp fab nag sémiñ wi wekk ko ci bu mag bi bi ñu ñëwee jaaxle ku ko def bi ñu woowee Ibrahima mu ne leen laaj leen xëram ju mag bi maanaam yàlla ju mag ji gàddu sémiñ bi xëy na moo leen ko def seetaat seen xel xam ne jaar nga leen fu sew ne ko waaye xam nga ne kat yii duñu wax mu ne lu mënu la wax buñ koy gor du mën a aar boppam ngeen di ko jaamu yéen ku leen gën a dof amul xërëm yooyu nag buur bi nga xam ne moom moom réew mi ci la daan jaamu ñu daal di mere Ibrahima lool ba xam ngeen safara wañ ko taalaloon ba sànni ko ci suñu borom seral ko mu génn nag jóge fa dem Palestine bi mu demee Palestine am fa ab diir mu ngi ànd ak soxnaam suñuy wax saaratu moom la jógee Iraq ak dem Misra dina fekk fa buur boo xam ne fu mu gis nit ku am soxna su rafet mu nangu ko Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ni ko kii sama uxtu la maanaam sama sœur la sama mbokk la fat ko waaye yàlla def waxtu wu yëkkatee loxoom jëmee ci moom rek loxo bi woo ko nga du tàllalu mu woo Ibrahima delloo ko may ko nag benn jaam bu jigéen bu ñuy wax Haajara Ibrahima jógee Misra dellu si Palestine jaam boobu ko buuru Misra bi may nag gannaaw moom saarat mi nga xam ne moo doonoon soxnaam mi ngeen ko faral di déggee am naa moom at yu bari te amul doom saaratu dal koy sant ne ko bu fab jaam boobu def ko soxna ndax mu am doom bi nga xamee ne nag saara am na doom doom ji tudd Ismaayila doom ji màgg am tuuti at mu màggee yàggul saaratu itam daal di am doom ñaari xale yi nag nekk fi Ibrahima yemale leen képp loolu nag naqari ki nga xam ne mooy gor si nga xam ne moo mujj jur doom ji di Isxaq benn bis Ismaayila dóor Isxaq Isxaq mii doomu soxna si njëkk si soxna si nag dal ne moom du nangu Ismaayila dëkk fi di doomu jaam bi rek di dóor doomam ak ñu di leen yemale te waruñoo yem Seydina Ibrahima seet ba nga xam ne jàmm du mën a am ci kër gi féeg ñaari xale ñee ngi fi féeg ñaari jigéen ñee ngi fi mu daal di déglu ndigalal boroomam am ndigal fab Haajara mi nga xam ne moo jur Ismaayila ki njëkk a juddu yóbbu ko bu ci xur woowu ma doon wax muy Màkka yooni xawaafil yi maanaam karawaan yi nga xam ne lu daan jóge fu ñu wax Yaman jëm fu ñu wax Palestine ci diggante yoon yooyu la dafa am li ñuy wax ay chaînes yi montagne maanaam ay salaasilul jibaali ay montagne ay tundi doj yoo xam ne dafay toftaloo di wéy ba nekk aw yoon beneen ñëw romb ko beneen ñëw romb ko ñu ëmb nag xur woo xam ne yaatuwul lool waaye ñetti yoon ñi ko ñi si jaar fëll ko ñu yoon jóge yaman jaar Palestine googu ñu yoon jëm Sham di jëm Misra xurwa wu ñu ëmb ci xurwoo xam ne lu mat ay junni junni at doomu aadama yi jaar ci yoon yooyu dañu fa daan yenniku sippi seeni sëf di noppalu ndax ay bëti ndox ñi fa nekkoon muy àll boo xam ne dafa wow koŋ bariwul ndox xur woowu nag am tuuti ndox xaw a tàlli ñu di fa sippi seeni gëléem ak seeni fas ak seeni nag xur woowu doj yooyu dañ koo ëmb ba wàcceelu ko dul ñetti bunt bunt bi ko jokkaleeg Palestine ak bunt bi ko jokkaleeg Yaman ak bunt bi nga xam ne moo suuf si géej gi diggante montagne yooyu ak géej gi di juróom-ñett fukki kilomètre diggante boobu nag xur woowu moom la ñu tudde albatha mooy makka makkatul mukarrama sayidina ibrahima seet ba nga xam ne jàmm du mën a am ci kër gis fi ñaari jigéen ñee ngi fi fab haajara mi nga xam ne moo jur ismaila yóbbu ko ba ci xurwa wu ma doon wax muy makka bu ko yóbbu ba ci xurwa indaaleel na ko yóbbal ak lépp lu mu war a aajo woo ba mu am diir bu yàgg mu bàyyi ko fa nag dem bi muy dem mu laaj ko ne ko àll bu sori bii nga ma indi ana koo may bàyyeel mu ne ko yàlla suñu borom mu ne ko yàlla day doy naa bàyyee nit kuñ ko bàyyeel de doo tumuranke ibrahima dal di dem wacc màkka haajara ak ismaila ismaila toog moog ndeyam ci diggante boobu ba nga xam ne yóbbal bi ñu leen joxoon bépp jeex na ñu tumuranke lool xamatuñu nu ñuy def li nga xam ne li nga xam ne moo njëkk ak jeex mooy ndox ma xam nga dégg nañ ñu naan aajara dafay daw di wër àll bi di seet ba xam fu muy mën a gisee ndox ndax doomam ji balay faatu ci mar am lu mu ko jox bu demee ba agsi ci doj lu kawe mu yéeg ca kaw seenu àll bi ba mu daj fa bëtam yem du gis luy niru ndox mu dawaat yéeg ci beneen tund seenu seenu du gis dara luy niru ndox ñaari tund yooyu nga xam ne ci la daan jaabante nañu mooy safa ak marwa boobu ba ñu ne wër na juróom-ñaari yoon diggante safa ak marwa bi muy wàññi ko nag di dellu si naagu na gëm na ne àll bi ndox amu fi mu fas yéene toog rek ci mar wi ba mu muy faatu moog doomam waaye bi mu dellusee mu fekk xale bi weq yi muy weq tànkam ndox bale ci tànk yi di sotti ko mu dal di fuug ndox mi ngir bañ mu walangaan ba réer ndax xamagul bari na wala déet bu mu gisee ndox moomu nag dal di gas ba génne ban tabax wëree ndox mi ngir mu bañ a seey dal di fay toog ay jamono wenn xeetu arab giir bu ñuy wax jurhum ñëw fekk ko fa fekk ndox mi mu amee ndox mi nga xam ne jëgg ji noonu lañ daan sippee ci béréb boobu ñu di fekk fa nag ndox ndox mi nag xaajaraa ko moom ndax tànku doomam moo ko sulli ñu dal di dëkk ci wetam bu ñu dëkkee ci wetam dal di xamanteeg moom miinante tàmbali di jaayante ko jëndante demante ko dikkante ba Ismaïla màgg loolu lépp Ibrahima mi ngi Palestine ñëwul seet si leen ndax suñu borom digale bu ko ñoom ñu ngi xijaas ci Makka Ibrahima nag yoon wi mu njëkk a ñëw seet si Ismaïla ak yaayam mu dikkee fekk Ibrahima Ismaïla dem rëbbi ci àll bi mu fekk fi soxnaam rek laaj ko ana Ismaïla mu ne ko dafa rëbbi soxna si nag amul lu mu ko may amul ndox amul ñam lu mu ko laaj rek mu ne ko dara nekku fi muy dem nag ne ko su sa borom kër ñëwee na nga ko xamal ne ko góor gu mel nangam mel nangam ñëwoon na fi may baayam ne ko na soppi bunt néegam bi ne Ismaïla ñëwee jigéen ji wax ko loolu wala nga xam ne daf na ko ne nga wacc sa soxna si mu wacc soxna sa ñaare yoon bi mu fi dellusee fekk mu takkaat soxna ci biir ba nu jurhum boobu bi mu dikkee soxna si may ko ndox jox ko ñam mu lekk bi muy dem fekk Ismaïla ma nga rëbb ba tey ñëwul ne ko bu sa borom kër ñëwee wax ko ne ko na bàyyi bunt këram bi nii ndax baax na mooy bu mu la wacc ne la fi bàyyi bi nga xamee ne nag Ismaïla dafa dem ba àgg ci suñu boroom bëgg gi nga xam ne moom la Ibrahima bëgg Ismaïla mii doomam te di yonent suñu boroom nag fiir na ci xolub yonent ak wàlliyu ak xaritam bëggul mu soppale leen bu dul yàlla mu bu ko bëgg koo nattu nag parce que yéene reyloo doom ji dal di koy wan ci gént ne ko sa doom ji nañ ko rey foofu ulama yi wax nañ fi wax yu bari mu arrikoon yi wute nañ fi ndax ndax ñii nañu isxaaqa la ñu doon bëgg a rendi ñii ne ismaila la ñu doon bëgg a rendi ndax rendi gi jiitu na juddu isxaaqa wala jiituwul juddu isxaaqa ndax rendi gi Palestine la amee woon wala Makka ulama yi wuute wuute yu bari ci yooyu yëpp ndax bu fekkente ne rendi gi lu jiitu is juddu isxaaqa la kon ismaila lañ doon rendi kon nag mënu la nekk lu dul Palestine kon amewul Makka rendi gi amewul Makka ndax bu isxaaqa juddoo fekk na fa Ismaïla ak yaayam te ni yóbboobu leen Makka kon ñu nga woon Palestine ñoom ñëpp bu fekkee ne rendi gi booba Isxaaqa la Palestine la amee bu dee itam Ismaïla la waaye booba Isxaaqa juddoogul Palestine la amee bu fekkente ne nag Isxaaqa booba juddu na nga xam ne kon Ismaïla ak yaayam indi nañ leen Makka kon rendi gi Makka la amee te bu amee Makka Ismaïla la Ismaïla nag mooy maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak arab yi Isxaaqa mooy maam yi yahood yi bi nga xam ne ulama yi wute nañu wute gu bari ci diggante boobu ndax yàgg na booba bindaguñu lu bari ci histoire Ismaïla bi nga xamee ne baayam day ñëw léeg-léeg di ko seet si ba mu amee ndigalal tabax kaaba gi moom ak Ismaïla fekk na Ibrahim Ibrahima moom abran abrania lay làkk maanaam hébreu te Ismaïla moom am na fukki at ak ñeent yaru ci arab yi ba làmmiñu arab la xam moom lay waxante ba nga xam ne ñoom ñaar bi ñuy tabax kaaba gi baat yu bari dañ koy liyaarante kenn du dégg sa morom waaye bi nga xamee ne tabax nañu kaaba gi ba mu àgg Ibrahima dafa daal di delluwaat Palestine isma Ismaïla moomu nag nga xam ne kon moo mooy maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci Makka juddoo waaye teel na fii ñëw moog yaayam jógewaatu fi dellu fenn moom ak yaayam ba yaayam faatu mu denc ko ci wetu foofu ñu tabax kaaba gi ibrahima alayhi salaatu wasalaam moom it dellu si na fa jamono joo xam ne ba mu fa faatoo foofu lañ ko denc moom it ji banu jurhum nga xam ne ñoo njëkk a fekk haajara ak ismaila foofu ñu mujj téye ndoxum sam-sam moom ko mujj jirif kaaba gi ndax ismaila moom kenn dong la fi te ñooñu ay najaayam lañu
yonent yi daraja yonent rek dafay doy yëngukaay ci kawe li ñu imaane gi nii benn tomb la rëdd bi ko wër def cercle mooy salaax mooy vertu mun loo am salaa te amuloo iman kon nga nga am salaa nga am iman sart la ci salaa moomu nga xam ne iman ngi ci biiram wilaya ko wër kon bala nga mën a am wilaya da ngay njëkk a am iman bi nga xam ne mooy tomb bi am cercle bi nga xam ne moo ko ëmb muy salaa soog a àgg ci wilaya wilaya itam nu bu woo ñëw wër ko nii nga xam moom ab sartam da ngay nekk wali nekk saalix nekk muumin mu nekk barsax boo xam ne ci la daraja yi doomu aadama yem mu di nubuwa nubuwa moo di ak yonent yonent fekk foo ko fekk yonent la waliyu la saalix la muumin la yonent nag li mu wutal yooyu yëpp mosul am kiiraay bu juddoo ci àdduna rek diggante ma boromam kiiraay nekk fi Ibrahima ba mu nekkee xale bu tuuti wa laqad aatayna Ibrahima rushdahu min qabl ba mu nekkee xale bu tuuti Allah fa dogub yonent àgg la dogom àgg dogom àgg dafa ba bi nga xamee ne tudd na te ñun nëbb ko ci xunt mi génn dund ci guddi duñ guddee gi bi duñ génnee ci guddi gi gis vidéo yi xamoon ne moom bi muy xale bu tuuti mu ne ko wax gis na ne am na am na borom te kooku mooy suñu borom xamagul na ne du yàgg ni ci lenn lu manque ci leeru xoram wala ci man sama xam waaye ci ni mu nekk xaleel la mu gis bidéew bi ne xanaa kii mooy sama sama borom bidéew bi suux mu ne ah kuy suux bu sama borom gis weer bi ne ah kii moo ëpp kon kii mooy suñu borom weer bi suux mu ne man daal kuy suux daal wax ma ci dara jant bi fenk mu ne ah kii nekk gën a rëy kii mooy suñu borom tabaraka wa taala jant bi so mu ne ah suñ borom daal yàlla nañ ma yéem gindi ma tàqale ma lépp lu muy yow obor yàlla yi ci des yëpp laaj leen ko laaj leen ko ba xam ñu ngi gàtt si ñu laaj leen ko loolu daal ñu rus laaj ko ma xam nga ne suñu yàlla yi mënu la wax nag mooy nga ëpp leen nekk wala maa saa bu dee min duñu laaj yéen a ñàkk fayda kon ku mënul wax mënul dara ngeen ko jàmm alayhi salaam suñu borom ci boppam dem ba Ibrahima kon xaritam la xam ngeen ko kon ci ulul azmi la bokk ñi gën a togg tënk ci yonent yi juróom yooyu Ibrahima ngoog gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Ibrahima ngoog
Ibrahima bi mu ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta moom nag laaj na loo xam ne moom dong ci mbindeef yàlla bind yëpp yonent yeeg malaayika yeeg wàllu yëpp moom dong ko mas a ñeme suñu borom wan ma secret bi ngay dekkale way dee mu laaj lu rëy loo xam ne mel ni mbindeef mosu koo laaj te mel ni mbindeef ñemewu koo laaj lan moo ko may xaritoo gi mu xaritoog suñu borom bañ ne Ibrahima xalilullah yonente bi sallallahu alayhi wasallam xalilullahi la waaye teg suñu borom daf ko jox ci teggin loo xam ne tax na bi ko suñu borom ne xoolal dafa kersawu ba sëgg Ibrahima secret bi nga xam ne diggante nga xam ne suñu borom rek a ko jagoo nga xam ne jaam ñi amuñu lu dul muñ dogal bi moom la laaj moom ko nga xam ne suñu borom dong ko war a xam mu bëgg koo xam laaj ko suñu borom waaye xaritoo gi mu xaritoog suñu borom tabaraka wa taala mu jajj ko ba noppi wan ko ko lu ci néew la bi nga ko ne awalam tuumin da nga gëmul suñu borom xamal na ne Ibrahima gëm na waaye daf koy xamal ne lu lu foor la laaj mu ne bala walakin liyatma inna qalbi booba Ibrahima nee ñu dafa àggul ci ci daraje yonent ci alxaqul yaqin mu ngi toog tellu toll ci aynul yaqin te agul ci xaqul yaqin ñu ne xaqul yaqin la bëggoon a àgg nag mar mu metti mu maroon naan ca te àggagu ca moo waral mu xër xër bopp laaj suñu borom secret boo xam ne kenn dara attanu ko dara xamu ko dara yeewu ko lu dul suñu borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne nee na ko na nga jàpp ñeenti picc mu jàpp baaxoñ jàpp ko tax jàpp tan jàpp jàmb jóob di nga rendi leen soob leen ci gën dëbb leen ba yàpp yi ak yax yi ak deret yi ak dung yëpp jaxasoo mu dank leen ñeenti dank doj mu nekk maanaam montagne bu ne mu teg ci benn benn tib woo leen ñoom yëpp ñu daal di mëcc mëcc mëcc mëcc cër bu ci nekk jóge fa mu nekk dellu ca palaasam ba picc ma maraat na mate woon ñëw naaw ba ak si dal ci kanam Ibrahima alayhi